ak lan mooy doon aussi euh, euh, li nga xam ne mooy conséquence yi. waaw euh, pour man assemblée bi. président de la république. Mm. dafa dugal boppam ci dilemme boo xam ni xam nga lan moo tax mu nekk ci dilemme. Mm. waroon a def te defut parce que politique lépp question de temps la timing. actuellement dafa am benn dilemme bu bi mi ngi taxaw ci ñaari affaire hmm. mooy c'est la déclaration de politique générale mu déggee ni gars yi di waxee ak ce qu'on appelle la dissolution de l'Assemblée hmm. te comme on dit il n'y a jamais de tête du sud entre le terme d'un choix euh, il faudra choisir euh, même comme disaient les philosophes ne pas choisir c'est toujours encore choisir par exemple si je m'inscris dans la logique de l'opposition qui estime et avance que le Premier ministre ne veut pas faire sa déclaration de politique générale. Il un risque stratégique parce que l'Assemblée nationale est en train de faire le toilettage de ces textes. te comme dañuy ne woon assemblée texte bi baaxul. léegi ëllëg bu texte bi baaxee nan lay demee par rapport à la déclaration de politique générale. ça ne sera donc tuuma day taxaw bi ci des aussi. mu am ce qu'on appelle le risque stratégique de la dissolution de l'Assemblée attention grand hmm. attention xam nga lu tax à l'état actuel à l'état actuel de la conjoncture politique aujourd'hui li latin yi di wax hic et nunc hmm. tey tey tey hic et nunc waaw bu ñu bu ñu diso dissoudroon assemblée on sera obligé d'organiser au plus tard dans les trois mois élection et le vent ne peut peut ne pas être favorable actuellement euh, génn bu mu génn euh, Jamil Sané génn bu mu génn élection législative baas a koy gagné dama lay jox benn benn benn misaal bu ndaw pour nga mën a comprendre li may wax dama am sama benn booy bu dëkk Nioro du Rip moom Pastef la bokk ci base bi la bokk ñoom ba ñuy xeex il y avait Moustapha bokk ci nguur gi sëriñ Mbaye Thiam bokk ci nguur gi Mamadou Moustapha Ba ministre de l'intérieur bokk ci nguur gi xam nga seen waa dëkk lan lañ leen di toppee fan yi hmm. ne leen yéen yéen daal ñu bon ngeen yéen yéen fi xeex ba jële fi ñi nga xam ñooy ñaan fajal bu bu gàcce gi te yéen tey leen ñu dara oh, xam nga ñun bu démb doon jëm ngeen bàyyi fii ñi sax moo fi tane woon ndax dañ leen léegi tey dàq ngeen leen mais ñun léegi yéen te mënalu leen ñu dara. dama jox benn exemple tey jii bu ñu organisé woon élection Matam chez moom les deux députés Farba da koy gagné wala mais xam nga lu tax je donne un indicateur ils s'en ont occupé du sommet ils ne pas occupé de la base je donne un exemple le dernier gouvernement il y a eu combien de ministres à peu près. vingt cinq vingt cinq. fais bien le calcul. dans les vingt cinq les douze ministres proviennent de deux régions c'est Thiès et Ziguinchor après faire le calcul en termes de provenance quoi socio-ethnique et cetera ça veut dire que Pastef aujourd'hui a une forme de crise interne qui fait que la base ne parle pas le même langage que le sommet il s'y ajoute aussi que ñu nekk dans une coalition yoo xam ni xamaguñu ne investiture yi di demee parce qu'on est dans la coalition. ça grogne au niveau de la base de Pastef. ça grogne nga wax ko ci olof quoi ndax Sénégalais yi dégg euh, xam nga tey jii euh, Pastef toogul ci foté bi toogul ni rip daa catu te nit boo catoo nag toogoo ko bu baax bu ñu demee élection mën nga faa daanu. li tax toogul mooy Pastef en soi dañu am benn genre mini crise entre le sommet et la base. le sommet estime euh, non la base estime que bu xeex jotee ñoom ñuy yóbbu ñu xeex bu fal jotee les cadres nañuy fal intellectuels yi mooy monkap te ñoom ñoo xeex xeex bi yëpp ñoom it dañ leen a war a responsabiliser est-ce que comprendre nga. démb ñoo fi nekkoon di cotiser di cotiser di organiser tey c'est leur partie au pouvoir duñ fi nekkaat di cotiser pour organiser ataaya est-ce que comprendre on doit les responsabiliser loolu mooy Pastef jël ko moom rek. au niveau de la coalition Diomaye président la question n'est pas encore tranchée parce que investiture yi dana xaw a metti lool parce que rien que député c'est 150 députés. rien que la coalition Pastef euh, Diomaye président 165 rien que la coalition Diomaye président on est deux ou 83 te on a que cinq place kon donc investiture yooyu du ñëpp nañu mën a investir et donc il peut y avoir même liste listes parallèles et cetera mm. c'est-à-dire par le jeu politique souvent moom lay wax waaye Pastef yi duñ ciy bàyyi xel man leen attention 54 pour cent yi 54 euh, pour cent yi attention am na nu mu ne boo ko xoolee ba ci biir Pastef 24 pour cent la ci am xam nga 30 pour cent yi ñoo ko moom. Mm-hmm. le peuple révolutionnaire c'est-à-dire que ils sont pas ce qu'on appelle les sympathisants de Pastef pas les militants. Mm-hmm. les militants dañuy jënd carte. Mm-hmm. les militants sax moom beneen affaire la. ñoom ñoom am na ñoo xam ni. dañu demoon voté ji c'est pas parce que sont dans le jeu des acteurs le jeu militant mais dañoo bëggoon Macky Sall jóge fi. vote sanction. très bien ku ci nekk. am nga sa raison bu la ci dugal. pour ñu jëlee fi Macky Sall mais réduire ou ramener tous les cinquante quatre pour cent au seul mérite de Pastef ba tax ngay tëgg élection te parewuloo ca base ba. <laughs> attention y a un risque stratégique est-ce que xam nga ni les gox-goxaat yi ñu dem nii ba léegi ni gaaw Macky a fa nekk. dans les grandes villes tu parce que euh, à la faveur de, des ministres DG et cetera mais àll bi mooy gagner élection fii te àll ba ñoo ñoo doon man dem ba léegi ñoo ah, ñoo fay man est-ce que comprendre et donc c'est ça le dilemme bi kii bi dugg mais dilemme bi lan moo ko ci dugal hmm. président dafa am benn décision bu mu waroon jël ci benn timing boo xam ne bu ko rawee rek moo ko dugal problème yi yëpp bana c'est-à-dire que dafa waroon def benn référendum dans les trois mois yi muy nekk ci pouvoir Diomaye warul woon génn mukk pouvoir bi ci trois premiers mois bi te tëggul référendum su tëggoon référendum rek rek la. référendum buy régler lan ci yan poñ. d' abord dana régler la la dissolution des yenn institutions yi HCCT dissolution et cetera assemblée nationale dana ko régler waale nga xam ne day jógee kii bi am constitution taillée à la rupture ak son programme jub jubal jubal jubbanti su jógee ci référendum bi rek songu assemblée nationale. par référendum dissoudre assemblée nationale tëggaat organiser c'est-à-dire que timing boobu trois mois yooyu mu raté mooy fax chaque jour qui passe devient un jour problématique pour lui parce que politique timing la dafa am loo xam ne boo ko boo koy def da nga koy def ca timing ba bu génnee benn fan rek mën na la indil ay conséquences désastreuses. ndax loolu mënu ko dabu actuellement. waaw waaw léegi nag nu mu koy demee mooy mooy loolu c'est-à-dire il faut choisir. il y a deux mooy soit choisir la logique de la DPG. cest à dañuy def DPG comme gars yi di ko waxee la stabilité dem octobre voter loi des finance ba téye dara ba ëllëg mais avec quelle assemblée où tu es minoritaire où tu n'as pas le levier législatif est que fii ba kii bi dina leen arrange ou bien nga xëtt ci lëndëm gi dissoudre assemblée dugal dugal euh, législative avec tous les risques que cela comporte parce que bu may dégg discours waa Pastef pour ñoom bu ñu defee élection ils peuvent se retrouver sax avec quatre-vingt-dix députés c'est pas évident ah. c'est pas si évident que ça. Mhm. c'est pas si évident. pas du tout. moi je souris hein. Hmm. Hmm. <laughs> Il y a tout un, il y a tout un travail à faire. Moi, moi, je veux qu'on dissolve l'Assemblée nationale. Absolument. parce que comme ça mbir yi leer nañ ñu xam fu ñuy dem. fu ñuy dem ah voilà. après euh, kii dem xooli article soixante dix huit euh, def n moins 1 ñu xool li budget daaw bi. et puis ñu ñu ñu traîner comme ça. alors et puis avec un. peut-être que euh, kii bu assemblée nationale bu bees. peut-être que y aura. Euh, mais mais mais pour man ci li nga wax ni option bi gën a sedd. tey bi gën a sedd mooy dissoudre assemblée nationale. c'est c'est mooy logique. mooy bu gën a sedd. ñaar yëpp am na risque. mais risque bi nga gën a mën a contenir ou circonscrire aujourd'hui mën ko gérer après mooy dissoudre assemblée sëgg nag ci investiture yi. ak recoller mm. la base d'abord au sein de PASTEF. la base avec euh, le sommet et puis euh, élargir. Temps, la coalition Diomaye. bi nag da ngay boo dissoudre dafa am benn délai de temps boo xam ne. voilà mais mais mais ci trois mois yi mën na ko. Hmm. parce que ci trois mois yi mën na réconcilier hmm. la base et le sommet au niveau de PASTEF mais mën na asseoir et élargir hmm. la coalition Diomaye pour mu muter vers une nouvelle coalition présidentielle. pour mu Sénégalais la masse ñu jàll ci dernière actualité bi euh, Mame Fatou. Mm-hmm. moo ñu yóbbu ci. Euh, mbiri convocation yoo xamante ne euh, am na ci njabootu Mariam Faye Sall. Hmm. Euh, lan moo ci lan moo ci bees.